Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jaamu fii si Vision muy chaîne bi nga xamante ne dafa am émission bu bees muy émission kàddu askan bi kaddu askan bi li nga xamante ne mbébétu askan bi la tey ñu ñëw fii toog suñu naataango yi ñu li ñuy def daal mooy que bàyyi leen daal ñu wax ak askan bi salaamaaleykum sëñ bi. waaw léegi ñu bëggoon a xam rek. askan bi dafa dafa dafa dafa rëy sax lay wax léegi ñu gis ne am na loo xamante ne comme mbébét la daal ñu gis ne am na si jafe-jafe yoo xamante ne da ngeen koy jànkuwanteel si seen liggéey beeg yooyu noonu ñu a xam rek jafe yi ngeen di jànkuwanteel liggéey bi lan la. waaw jafe-jafe moom boo bëggee dégg dëgg moom boo gisee buñ ci wax carrément mooy <coughs> jafe-jafe yi daanaka dafa wër at parce que li gën a indi jafe-jafe yi mooy mbas mi fi am. daanaka moo ko gën a yokk ba tax na fi looy wax ci lañ koy wéer mais xam naa ne jamono ji moom fi na ni moom na xaj na trop trop trop trop ndax lépp loo xamante ni ñu ngi koy liggéey daanaka que ban heure huit neuf heures nga wàcc bala ngay pare pour xëy ko ko di commencé cinq heures ñu ne marché bi tëj nii loolu daanaka liggéey amatul parce que ñun bala ñuy commencé liggéey daanaka cinq heures léegi 5 heures rek ñu ne maa ngi tëj leen bu tëjee war a liggéey si guddi gi ñu ne 9 heures kenn du génnati kon xam ne jamono neex loolu mooy suñu problème quoi jamono ji moom wax dëgg yàlla moom fi nii métti na trop métti na trop te fooyee tëju bi daal moo xaw gàllankoor fi ni comme couvre-feu bi arrangé wu leen. non xam nga ne couvre-feu bi arrangé ndax couvre-feu wax dëgg yàlla moom ah xam nga ne arrangé wu ñu dañoo ñàkk pexe rek. en plus que xëy na yàlla lim wax rek moo ci nekk may mbas mi kenn mun ci dara yàlla moo fi andi kenn mun ci dara parce que bu fekkoon keneen moo ni ko teg lu loolu xëy na sax ñu def ne mbas mi mbas mi loolu moo tax mënoo xam looy wax wax ñu ne mbas mi la te mën loo ko fi dindi ndax nga gis loolu mooy problème mais nag dëkk bi daal wax dëgg yàlla bu ñu mayoon daal ñu yokk marché bi may ñu ko ba ba sept heures mhm. suñu marché pënd bii ñu bàyyi gars yi ñuy jaay ba sept heures sax dix mois dina baax mais cinq heures ñu ne wàcc leen balaa fi ne nii rak fi ne nii daanaka ñu commencé wàcc loolu moo métti léegi su déggee sa wax daal mbir mi daal leer na mbas mi ko fa andi te couvre-feu bi tamit enragé wu ñu si bëri léegi ma bëggoon a xam rek yan kàddu ngay lancé maanaam nguur gi nga xamante ne ñoo fi nekk euh, pour juste ñu par exemple comme bu ñu bëggee yokk lii ni nga xamante ni mooy couvre-feu bi du leen arranger mais mën nga si wax loo xamante ne comme daf leen di kii daf leen di conscientiser ñu mën a del décision boo xamante ne dina leen xaw a arranger quoi. waaw man daal li ñu gën a arranger moom li ñu gën a arranger moom ñu bàyyoon marché bi ñu jaay ba sept heures parce que loolu moom mooy numéro un bu ñu paree couvre-feu bi bon physiquement bu ñu ko yokkoon ba ba minuit danañu arranger. parce que fi ñu ko teg dafa xaw a kii quoi. bala ngay régler reer sax parce que boo jugee dëkk ba ñëw. bala ngay wàcc bay lijjat la ma reer yooyu. pour yi wàññi te loolu dafa xaw a métti parce que gars yi fii kuy dox guddi presque néew fi mais boo xoolee boo liggéeyee wala ngay sangu bay wàcc ñu ne neuf heures jot presque reer bi boo ko bëggee dëgg-dëgg da nga koy profité dugaale ko booy balaa ngay wàcc sinon doo reer dafa fa métti buñ ko jéemal avance sax bu ay minuit di nga mën a wàcc sangu reer dëgg ah mais xam nga nit moom day wax li bëgg rek te bu ñu sañoon jàpp lañu si numéro mooy marché bi mu mhm. bu amoon. waaw incha bi ñoo ngay bu baax a baax tonton say kàddu. waaw ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum léegi lan mooy doon say kàddu si lii nga xamante ni mooy couvre-feu waaw samay kàddu ci ci ñi de man dama gis ni maanaam xëy na ñu demee ba ci kanam ñi ko defan xëy na mën naa am ñu gis ci résultat ci ay cas yu wàññiku bu ni dem nañ ba ci kanam te gis ñu ci xam ne kon daanaka njëriñ bi bëriwul boo xoolee yow vingt et une ñu daal di la ñu daanaka yow presque vingt et nga daan wàcc mm-hmm. loolu moom day daal di ci koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu yaxantu daal mm-hmm. waa nguur gi war nañ cee bàyyiwaat xel a samay kàddu yu mujj dama koy jëmale mboolem population bi nga xam ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax suñu borom. waaye gën a bàyyiwaat xel bu baax ci ndigali suñu borom bi. waaw man dama gis ni jafe-jafe yi ak xat-xat yi ñu nekk li ko yóbbee mooy yàlla ci la bokk ak mooy yàlla bu siiw. kon nag ñu ngi dénkaan ñëpp rek ñu gën a góorgóorluwaat ci topp yàlla may nga xam ne moo ñu gën waaye gën a demee noonu ndax façon jikko yooyu day bokk na ci li nga xam ne mën naa indi musiba yu mel nii kon nag ñun ñëpp war nañoo gën a góorgóorluwaat bu baax soppi jikko yi bu baax a baax xam lu mel nii li ko fi mën a jëlee mooy soppi jikko yi am ñaan suñu borom waaw soppi jikko yi ñaan suñu borom di sàkk sarax di jàng alxuraan tuubalaat suñu borom daal loolu laa gis moo fi mën a jëlee jafe-jafe yi d'accord incha allah bu soobee yàlla loolu yëpp day am incha allah donc sëñ bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc mbokk yi ñoo ko déggandoo il est temps nag couvre-feu bi ñu xoola gouvernement bi xoolaat li ni nga xamante ne mooy couvre-feu bi parce que arrangé na ñenn ñi arrangé wul tamit ñenn ñi te tamit euh, li ñu mën a lancer appel le président bi mooy que jusqu'à présent couvre-feu bi jar na xoolaat bu baax a baax mbas mi nag comme kàddu yi sëriñ bi wax fii nii sànq nee na leen carrément ngeen di jàpp di julli tamit baax na si ñaan suñu borom mu jëlee lii ni nga xamante ne mooy feebaru corona bi fii nii si senegal donc c'était votre émission kàddu askan bi fii si salaam Vision ñu ngi leen di dox di daje ba beneen yoon incha allah. Bienvenue sur Salam Vision.